ñu def la moo dig maandute looloo war a rey ñu rey la ak maandute la bu fekkee ne sarti rey la daje na ci loolu nit ñi li ñu war a xam mooy yow da nga war a maandu taxawal maandute te doo xaar résultat bul xaar résultat nit ñi dañu continuer di reyam duñu rey déedéet tout sa yoon ne def na nit lii def ka lu mel ni li mu def na ko yàlla digle mu jeex tak loolu rek lañ soxla yàlla xaarul ci bàyyi ma yi ñu dundaat ba muy xam ndax dinañ dinañ violer mbir mi walla déet ndax bàyyi ma yi ginnaaw bu loolu amee jeexal nañu ay suuf rek la ñuy doon kooku xaarul si ñoom dara waaye jëmmi maandu la ne bala ma leen a def ay suuf fay dina am ba noppi xar mi jamoon moroomam mbëkk moroomam gaañ ko te am ay béjjin boobu day fayu ci moom bala ma leen a defi suuf kon loolu mooy dëgg ku jël alal réew mi dix milliards lu ñuy def ak yow. waaw dañuy jël si yow lu mel ni li nga jël ci réew mi du loolu moo dig maandu waaw am na ñun ñi koy continuer di ko defam du ko def dina tax ñu bàyyi àtte bi dina tax ku lekk alal ñu ne nañ ko bàyyi c'est parce que loolu du solution parce que nit ñaa ngi di lekk alal li déedéet ku ka fi def ñu def la lu tax bu ñu ñëwee ci bakken ñuy wax naan du solution nangam ak nangam parce que ñun ñaa ngi continuer di rey pourtant dogal bu ñu fi mën a jël ñun ñaa continuer di ko lu tax dañu tax ñu bàyyi dogal yooyu. déedéet dogal yi day continuer di wéy donte nit ñaa ngi koy def loolu du aw lay yàlla dafa bëgg ku taxawal maandute bu suuf maandute bu taxawee si suuf suuf jàmm am fi bu taxawul si suuf nag ah du ñu jóg ci fitna du ñu jóg ci fitna kon nag laay Mamadou nanu bàyyi xel loolu waaye rey ñu rey laat am na ay charte yoo xam ne bu ñu delloo ci alxuraan ak feneen dinañu ko xam waaye ku taxaw naan du solution jàppeel ne yaa ngi wàññi rabbul alamin ndem ab jullit nga